tey moom yokk nañu ngànnaay parce que lu jiitu marché bi sax comité d'initiative bi ak magu dëkk bi ak kilifa diine yi déggoo nañ si jàng ay kaamil dañu pare si jàng kaamil bi ñu jublu si marché bi suñu kaamil ñu koy jàng yéene nañ si ne su fekkee ne suñu port bi jàmm ak teraanga la ñuy andil yàlla na fi port bi am yéene nañ si ne bu fekkee ne ay nit ñoo ñëw nar a bootu si ginnaaw port bi sàcc suñuy suuf def si leneen na leen loraange ngay topp bu ñu paree loolu la jublu si marché bi amoon nañu autorisation dox fi ba buntu mairie pour wane suñu naxar parce que mbir mi marché bi dañuy wane suñu naxar en même temps lancer waale avertissement suñu naxar mooy lan depuis Dubai Port World ak gouvernement bi ñu mu fi yebaloon ñu wax si affaire port bi wax ñu ne port bi 600 hectares lay occupé ba tey ji loolu gisuñu dara lu ko dëggal bu yàggul rek la service impôt et domaine génn assiette foncière 1200 hectares port bi lañ waxoon bu fekkee ne dafa changé ba si ñun nañ liñ leen waxoon changé na lii moo fi nekk léegi mais tant que loolu amul lañ ñu waxoon mètre carré du si yokk te waa Ndeyaan ñëpp dañ taxaw pour loolu port bi wax nañ ne d'accord nañu pour poor bi am 600 hectares yañ ñu waxoon waaw 601 hectares non bu fekkee ne li ñu waxoon ñu si yem jël suñu suuf moo leen tax a jóg on va refuser bañ ba tëdd si naaj luñ si fekk fekk ñu si luñ si fekk dinañ fekk parce que actuellement ñooñu fi ñëwoon pour ñun crédible tuñu pour wax ak ñun mu ministre yi fi ñëwoon parce que la ñuy ak engagement yi ñu joxe woon yëpp taxu na fi mu nekk nii président de la république la ñuy interpellé directement d' dugal nañ demande audience ak président de la république bëgg nañ si ni mu gën gaawe président de la république mu recevoir ñu parce que moom kese moo ñu mën a wax lu dal suñu xel. directeur port aussi dégg nañu waajtaayam pour ñëw fi ñu koy xaar parce que am na ay bonne volonté yu siy dox pour mu ñëw ba léegi ñu ngi xaar bu weesoo ñaar ñii gisuma keneen ku ñuy wax loo xamante ni mun nañ ko jàpp parce que lépp lu ñuy wax day toxu parce que comme comme comme parti boobu déggoon nañ ñun amuñu problème ci parti boobu amuñu ci contestation uh-huh. parti boobu déggoon fa kon loolu jël na mais ñoom dañ dem ba ci kaw après lu bëree comme 800 hectares jël nañ ko jël si ectare si si commune bi te ñun pare wuñu pour loolu. comme ni ma ko waxee léegi rek poor ba fële bant mën ko faa samp te su fekkee ne ñoom dañuy forcer ñëw ne dañuy fay def dara luñ fay andi dañuy fekk ñu laal suñuy basang tëdd lu ñuy def suñu kaw lañ koy def. suuf si am nañu leer na ndañ ne am nañu ne si gannaaw. parce que dinaa ko waxaat dégg manti sañ nam président de la république nee na 400 hectares doy na si port na gars yi jël 400 hectares kon lu ñuy doyee 1200 hectares gars yi wutatuñu port spoliation foncière la ñu bëgg a def comme yi xew si yeneen dëkk yi mais yeneen dëkk yi du ndayaan lii xew foofu du fi xew mënu fee xew sax du fi mos a xew